xasiida gi ma way ci moom ci soxna astu jaara yéen ñi di xidmatul xadim ci soxna astu yeena moom xasiida gi way ci moom ci soxna astu jaara yàlla na buur bi yokku leen may leen ndam sàmmal nu leen mottuli faw a yéene seen ci toolu soxna jaara yàlla na buur bi yokku leen may leeni ndam sàmmul nu leen mottuli faw a yéene seen ci toolu soxna jaara Maryama ni mu ko bëggee tañ am tawfiqi andi ko ak moom yàlla yàlla subhaanahu wa taala yàkkali ñaan googu bab laj mbooleem jaboot ak cheikhul xadim waaye yàkkali ko yàkkali bab laj mbooleem jullit ci kaw suuf mbokk yi ñu ngi leen ni nuyu te di leen ziar bu baax a baax di jiital ci nuyoo bi kilifa gi nga xam ne moom lañ fekk ci jataay bi muy sëriñ Mudu Mbàkke yaakaar naa suñ ko nuyoo dana mën a jël nuyoo boobee yàqli ko ba fépp fu mu war a yegg ci quartier bi ak ci kilifa yi mu àggale ko fa waaye di nuyu baax sëriñ Sow Ndiaye ak sëriñ Omar Sylla ci turu daaira bi waaye di nuyu seen jëwriñ sunu jëwriñ soxna Aïchatu Mbakke di ñaan yàlla subhaanahu wa taala jataay bu tedd bii nga xam ne jàng nañ fi limab ay kaamil limab ay te dara taxut ñu def ko lu may dollee barkeelu ci soxna su tàdd soxna soo xam ne ak dundam gépp daf koo jeexal ci islaam muy soxna Mariama Jaaratullaay Buso loolee yal na ko yàlla nangu te bu ko nangoo yiw ba cay juddoo yal na ko sotti ci biir réew mi ba jàmm lamp bu baax a baax ak naataga ak xiwal ci barkeb Sëriñ Tuubaa ginnaaw nuyoo bi ak ziyaar yi mu mel ni mbokki daayira bi dañoo sàkku ñu fàttalente ci soxna su tedd si nga xam ni moom lañuy ñuy waajal bisam tamit lu yel nag loo xam ne lu war la ndax ak dund su fekkee ne am na njariñ war nañ jamono ju nekk di ko fàttali ña ko fekk wut ndax ñu man caa jànge ñu wax ni dañoo bëgg ñu fàttalante tuuti ci daayira xam naa nag ñaari waxtaan yi xay na dana xat ci jataay bi waaye dañu jëkke rek ci fàttalante ci soxna si ñi xamle nag ni fàttalante ci soxna jaaro nekkut ak waaraate waaye liñ ci jublu mooy mag mi koy dégg te yàlla dogal mu teg tànkam fa soxna jaara tegoon tànkam mu gën a dollee góorgóorlu te xam ne foofu la ndaw li nga xam ne itam day doon dugg àdduna te bëgg baax su déggee ñu waxtaane soxna jaara dana mën a am fu mu roy boobu ëllëgee mu bokk ci mag ñi nga xam ne ñooy siggal réew mi waaye ki nga xam ne itam xamul dara ci baax su déggee ñu waxtaane soxna jaara su ko yàlla naree dimbale am xelam mën na cee leere mu gindikoo ci ba xam fan lay teg tànkam soxna jaara nag nañ xam ne du kenn kudul koo xam ne la yàlla subhanahu wa taala waxoon ci alquran ni dafa am ci jullit ñi ñoo xam ne ba ñu dëxalante ak yàlla la ñu dëxalante woon ak moom lañ koo matal soppi wuñ ca dara seen diirab dundu muy min al muminina rijalun ma aahadu llaha alayh fa minhum man qada nahba wa minhum man yantadir wa ma baddalu tabdila soxna jaara it dafa bokk ci ñi nga xam ne dafa gëmoon wax yàlla ji subhaanahu wa taala ji wax ni képp ku jëf lu baax moo xam muy góor moo xam muy jigéen ñu ko dundal dund gu teey te itam danañu ko fay lu gën a rafet la mu doon jëf bu ëllëgee yawmal qiyaam man amila salihan minhum min dakarin aw unsaa wa mu'min falanuxiyannahu xayaatan tayiba kon soxna jaara day soxna soo xam ne waxtaane ko mooy waxtaane almaratu saaliha alkaamila soxna su baax soo xam ne war nañuy bàyyi xel ci ni li ko may lam am ay jaar-jaar la ay jànkonte la kenn ku nekk jii ma teg sa tànk ci jaar-jaar yooyee jii ma teg sa tànk ca yam doon jànkoonteel ndax soo mënta am lam amoon it bu ñu tuddee soxna jaara tudd la nga nekk ko baax soxna jaara radiyallahu anha bokk na ci li ko may li mu am ginnaaw boo xam ne coobare yàlla dafa jàll waaye nag nañ xam ne yàlla ci coobareem day tànn ay jaam mele na ko neex du ca tàggu kenn waaye nag am na ci itam ab jaam aw yoon wu mën a jaar sabablu ba kuy lim jàmbaar ya boole ko ci soxna jaar rek dafa am jagleel ak yàlla waaye dafa jëf itam ba ñëpp xam ne jëf la yooyu bokk na ci mooy li ñuy wax ab taar ak li ñuy wax bëgg àdduna ak li ñuy wax topp ak juddu ak li ñuy wax bëgg alal ak li ñuy wax rëy yooyee ay jikko yoo xam ne jëpp jigéen ji bëgg a dem ci yàlla subhanahu wa dana fexe ba xeex ak yooye ba ko soxna jaara nag yooyee dafa xeexat ak ñoom ba leen génne ci boppam rëy génne ci boppam bëgg àdduna génne ci boppam jaay ab taar génne ci boppam wut alal waaye dëkk mal boromam subhanahu wa taala barab nag ku fa jële dara day yell nga tegaat fa leneen moo tax bi mu jaayanteeg boromam jël ab taaram teg ko fee dafa jël ko ju baax ji nga xam ne moom la wax ab tawaadu te mooy toroxlu ràngoo ko wàcce boppam li ñuy wax ak rëy itam daf koo jël wàcce boppam bëgg àdduna daf koo daaneel jëmbat fa garab ak dëddu bëgg alal daf ko daaneel jëmbët fa garab ak wut ngërëmal yàlla subhaanahu wa taala moo tax am na kilifa gu baax gu ñuy wax ma Massamba Diop nga xam ne moom soxna Jaara radiyallahu anha bokkoon na ci ay ndey daaraam doon na tënk lenn ci melokaani soxna Jaara daal di wax ni moom de asilatun watanan xasinatun xasaban sharifatun nasaban taxaafu mawlana soxna jaara bu fekkoon ne aw askan rek lay topp kon du wàccee boppam ci kanam kenn su fekkoon ne juddu bu baax rek lay topp kon du ñee kenn ci ab juddu waaye nag yooyu yëpp da koo tegoon fi suuf xam ne am na leen lu ko gën lu muy wut te mooy ngërëmal yàlla mu sax ci ragal yàlla subhanahu wa taala waxaat lu am solo daal di wax ni mutiatun rabbaha wa zawjaha abadan xasinatun xuluqan lam taasi isyaana sëñ ma Samba Diop nee na soxna jaara li mu saxoon mooy topp borom këram ginnaaw bu toppee yàlla subhanahu wa taala soxna yi nañ xam ne yàlla nim binde góor noonu la binde jigéen ci coobareem ak kattanam wax ni yéen ñëpp nag na ngeen xam ne dama leen bind ngir ngeen jaamu ma bind ma leen ngir am pax soxna si nag bi mu jógee daf ni dann yàlla subhanahu di ko topp ci lépp loo xam ne santaane na ko di moytu lépp loo xam ne tere na ko waaye nag dana borom këram lépp loo xam ne bëgg-bëggam la muy dox ca loola lépp loo xam ne luy wur luy wun li luy wundu ngërëmam la mu nekk ca loola ba am ngërëmam nekk ku rafet jikko koo xam ne mustama yàlla subhanahu wa taala lam taasi mawlana nekk koo xam ne sëñ bi nee na mësta nekk soxna soo xam ne day ay balaate wala muy xasaate wala muy jànnewaate walla muy yàq dara kenn waaye dafa nekkoon koo xam ne ku jaaxle boo dikkee mu fajal la sa jaaxle ku tiit boo dikkee mu dalal la ku xiif boo dikkee mu raggal la ku mar boo dikkee mu nandal la ñu ngi nekk li sax ni wane na misaalam jikko ji rafet ci bi muy nekk fii ci xuru Mbàkke jigéen ñi mu dëkkaloon xam ngeen ni ñaare képp ku baax day bari ay nattu ak gàllankoor te ñi nga xam ne baaxuñu ni moom dañ koy jéem a gàllankoor ci di ko tuutal ndax mu denc ci ak baaxam sëñ Tuubaa nee woon na sëñ Daam Abdourahman ku nekk ci ab koñ mel melokaan baaxut day bëgg ñépp mel na moom ndax ñaawub melokaan woowee soxna jaara baax gi mu baax ñi nga xam ne amuñu leen a xol mel ni ku ko iñaane su jógee di rooti dugg ci biir dëkk bi képp ku mu àbb baat daf koy gàntal ku mu àbb paan daf koy gàntal ku àbb ab poli ñu xam teen xam nañ ko dañ koy gàntal waaye soxla jaara su fekkoon ne kuy fayantoo la kon su lijjantee ba am loola day beru root rootam boppam waaye lim doon def jigéen ju nekk war na ca jàng mooy dafa fexe ba am ab pëleeg baat lijjanti ab goj su duyee ay ndaam ba mu fees ñi nga xam ne dañ koy xiisa ci seeni jumtukaay ñooñee ñoom lay dem ci guddi gi duyee leen seeni ndaam ba fees su xëyee bu ñu gisee seen ndaam fees ñoom ñëpp ñu yéemu naan kan moo def lii di ko déyaate seen biir waaye xel du daj kenn ku di soxna jaara radiyallahu anha loolu nag mooy la yonent bi waxoon ni sil man qataaka wa ahsin ila man asa ilayk yow boo bëggee di julit dëgg-dëgg da ngay jokk ki waaye ki ñaawal jëm ci yow yow da ngay def lu ci moom suñ borom subhanahu wa taala ne woon na watbaci sayiat alxasanata tamxuha lépp loo xam ne gis nga nit ki def ko ci ab safaan yow fexeel ba delloo ko lu ñaaw ndax loola astaghfirullah alazim lépp loo xam ne gis nga nit ki def ko ci ab safaan yow fexeel ba delloo ko lu rafet ndax lu rafet loolee moo koy delloo si ba mu tax mu xam ne lam nekkoon du noona soxna Jaara nag noonu la doon def ay dëkkandoom moo taxet mujj na di sangab képp ku mu dëkkal moo tax sëñ Masamba Diop nii man talabu xaajatan min indiha naalu xayra al hadiyati bidaanan wa sudana ñëpp ñi nga xam ne dañoo jógoon dem ci moom ngir sàkku faju aajo ñoom ñëpp am nañ ko moo xam muy nit ku weex moo xam muy nit ku ñuul moo xam muy góor moo xam muy jigéen ku mel noonu nag suñu ko yàlla subhanahu wa taala wërsëgalee soxna yi nañ xam ne li war mooy jéem koo roy dajale mbooloo yi di dem baax na joxe xaddi yi xaalis yéeg yére yi baax na ndax bu ñu joxee xaddi yi yére ñañu ko jox dana leen jariñ bu ñu joxee xaddi xaalis ñañu ko jox dana leen jariñ waaye nag ñu koy joxe la leen di dëgg dëgg dëgg mooy soxna ci fa mu nekkoon ñu jéem a nekk foofa ci jikko yu baax ndax kat rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mi fi gën suñ borom subhanahu wa taala dafa wax ni nañ ko roy walakum fi rasulillahi uswatun xasana kon soxna jaara itam su yàlla wërsëgalee ko Sénégal muy soxna soo xam ne àdduna yépp ko ngëjoo woon waaye ci baax ak yàlla ak bëggu bëgg sénégalais tax mu may leen soxna jaara war nañoo fexe nag ba ay jikkoom ak ay jaar jaaram ñi di ko gëm di ko roy te bañ rek bañ a yem rek ci riiram dem poroxaan marca suuf sa rocc ca ngeer ma naan ca teen ya yooyu yëpp ay njariñ la waaye njariñ yi nga xam ne mooy des ci ñun ñii te mooy des ci soxna yi mooy déglu yi nga xam ne soxna jaara radiyallahu anha ci la nekkoon ci ay jikko ñu jiim faa teg suñuy tànk digganteem ak boroom këram ku nekk léegi na woykat yi li ñuy wax soxna jaara mos naa jël aw sémmiñ di xar gaalam lekke booba lay bëgg tàngal café déggal sëriñam loolu itam dañ ci jànge ni jigéen ci root borom këram war na lépp loo xam ne war na ci taranga ak fonkeel ak itte mu di ca yi ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ni jëpp jigéen yoo xam ne faat na borom këram taxaw gërëm ko te ngërëm la di dëgg te yàlla rek tax ab wàcc waaye mooy àjjana waaye nag wax na feneen ni jëpp jigéen yoo xam ne génn na borom këram te génn gëm génn amu ci ndigal borom këram jéego bu mu séqi malaaka yaa koy rëbbu ba keroog muy dellusiwaat kon li jigéen war di sàkkoo ngërëmal borom këram noonu lay it waral di moytoo lépp loo xam ne la jiyoog bëgg-bëggi borom këram sëñ Basiru radiyallahu anhu nag nee na soxna jaara moom la mu daan def ci borom këram di ko def ci digganteem ak boromam noonu itam la ame woon it ci yar ak njabootam ci jox rahmaani bismil ilaahi maa ngi jéem di saddi ay bay yeem na ngeen ko diglu ngir no am ngaram ci soxna jaara bismil ilaahi maa ngi jéem di saddi ay bayit yeem na ngeen ko diglu ngir no ngaram ci soxna jaara man Moustapha may sat di woye ci ay wolof yu leer di woye satu borom samba di ndey ji toolu soxna jaara ngir sant gi war na ci ñun ngir moonu won yoonu lagan te di xidmatan alan ji toolu soxna jaara te kii tax di wax borom itte la ngir amul morom ki soxna jaara mooma yee moom di sibtu jaara dinaa ko sant sant ko dinaa ko wayta joobe ko man Moustapha te faale ko kookaa di jaara bokk fu baa baax am yitte am yéene ju baax bëgg maam jaara bu baax te fonk soxna jaara tiram wa moo di Aiza kooka fi donno Aiza mu mag ma donno Aiza mi fii di sibtu jaara sa yitte yow ñëpp ko safar luy draw na xalam weyal te topp yow sama Mariam mu soxna jaara te sab liggéey gis wér rafet ne ne na kenn mësul la gis ngay botte soxna jaara kenn mus la gis ngay botte yow yaa ñu tayaatu yow gannaaw moo tax ba nawle ñëpp ñëw uyu soxna jaara kenn mus la gis ngay feewale xammi doo jaawale yaa dunnu astuna wale yab soxna jaara say doxalin yëpp a rafet jigéen ñëpp a ko waat sa maslaha yëpp a soxna jaara njukkal la war nanu wer sargal la war nanu bu wer ngir sa liggéey set na wer yow sibtu soxna jaara njukkal la war nanu bu wer sargal la war nanu wer ngir sa liggéey set na wer yow mi di sibtu jaara yow saw doxin jum leer say jëfin wer ta wer sant la ak ñaanal bu wer nga raw ci soxna jaara ku yabu fartu dee la kay bay faalu jaara bu way ci ab la gey sak la yoxom ci jaara ku yebu far tuddee la kay baay faalu maam jaara bu wee ci ëpp liggéey sag la xasaay mos la yokkum ci jaara yow yaa ngi bay yaa ngi doxoon sa toolu maam yaa ngi weral liggéey bi yow mbàkke si gin te santu jaara bay fal nga yow yaa ngi daggal yow soxna astu yaa sagal say soppe yépp boole sigil ci sopp soxna jaara jaara ma bur na kaweel say mbir tayit yal na biral saw tuur tayit yal na weral sa jàmm yow fi jaara yàlla na buur musal ci ay suuf ak ay kaw nit ak jinne ak rab ak ñanaa yow mii di set ci jaara na yàlla may la wér te may la fanta jox ci yoon wi ñëpp xam la far yaa sibtu soxna jaara sigil nga yow ku fi jigéen wane nga baax wane nga noon sigil nga yow ku fi jigéen wane nga baax wane nga yoon yaa doon maam yi fi newoon di jëf lu rëy ci jaara sigil nga yow ku fi jigéen wane nga baax wane nga yoon yaa donnu maam yi fi newoon di jëf ci jaara yow genn góor yebu la ngir pas-pas bu rëy booleeg sawar di boole woo mer jaajëf sagal nga jaara njaboot nga yaa tu nga tamay tabe nga yaa sore ku xamee nga am fulla taxay jëfal ci soxna jaara jiitu nga kenn seenul salep raw nga ta boole ko goyof kala bañal ko kay ki do feyal te jëf ci jaara bëgg sëriñ Tuuba bu bëgg borom Mbàkke xewar bëgg nga bëgg ña ñor yow di sibtu jaara doo boddi doo jànni mindeef yow bëggaloo kenn di xiif yaa donnu Cheikh Abdou Latif may set ci soxna jaara yow jël nga ay meloom bu wér jël nga lewet ga ak dangar jël nga dogom nga yaa ko xer yow mii di sibtu jaara yaa mel ne taw xamoo sa noon dangay dajal ñi ki siyaan yow yéene woo kenn safaan damul ci soxna jaara rafet nga jikko seen nga xol moo tax nga um ñepp xol di leen bégal di leen digal ci mbiri soxna jaara man Moustapha taxaw nu ñaan ci yàlla rabbana mu may ndundam ba nepp na jaarama soxna jaara yéen ñii di xidmatul xadim ci soxna astu yéena moom xasiida gi ma woy ci moom ci soxna astu jaara yàlla na buur bi leen may leen i ndam sàmmal nu leen mottuli faw ay yéene seen ci toolu soxna jaara yàlla na buur bi yokku leen may leeni ndam sàmmul nu leen mottuli faw ay yéene seen ci toolu soxna jaara